président bi ñu projet bu soo fi ñëwoon ñetti at yi ci ginnaaw dañ fi fekk ay xale yu ndaw ñu nga xam ne ñàkk terrain football moo leen jàpp ba ñëw di xëccoo ak fas yi ak xaj yi espace bi nga xam ne bu timis jotaan kenn waru fi ñemee jaar waaye sa liggéey moo tax fii ñu taxaw ñu mun fi taxaw tey di lancer projet bu min bu ni mel sa liggéey moo tax boo gëstoon sa ginnaaw di nga gis la mosquée Souleymane Fall bi nga xam ne yow yaa may waa Guédiawaye boo xoolee sa ndeyjoor di nga gis les allées Seydou Nourou Tall nga xam ne léegi nit ñi dinañu jógee fu nekk bëgg a ñëw doxal ci suba ndax rafetaay bi ak pexe bi fa

Médina Gounass est sorti des eaux waa Médina Gounass ñu fi teew xam nañ li ma wax bu baax terrain nga xam ne boo joxe woon 1 million ñu jox la ko ci Médina Gounass tey jii boo joxe woon 15 millions sax duñ la ko jox te dara warul ko lu dul sa liggéey kon nag monsieur le président de la République gàcce ngalaama euh, Guédiawaye mën wax ne moom mooy jëmmal lii ñuy wax émergence ndax su ñuy wax émergence ñun waa Guédiawaye mën nañ ci toog loxoom mën nañ ci teg bët ndax quartier boo mën a dem di nga gis fi lëndëmoon leer na à cause programme cinquante mille lampadaires fépp ku suuf def nga fa ay tali karo taxi yi ak clando nangul woon dem léegi ñu ngi dem fépp à cause à grâce monsieur le président de la république programme yi bëri na ba tax tey ci géejawaay dëkkal na ko ci rôle bi nga xam moo ko doon joué nekk xolu région de Dakar nga xam la grande banlieue ak le centre urbain de Dakar ñoom ñëpp fii mooy aujourd'hui seen carrefour loolu te yaa ngi ko dëggalee bi nga jëlee décision te loolu muy honneur bu mag ci ñun nga ñëw lancer le BRT fii ci kanamu jumaa Souleymane Baal monsieur le président de la république jërëjëf. suñu mbokku yi dëkk bii la ñuy woowee Géejawaay dëkk bii ñeenti téeméeri junni doomu aadama ñoo fi yeewoo mu ngi dajale bépp xeetu sénégalais waaye mu ngi dajale bépp caada sénégalais mu ngi dajale bépp mbaaxu Sénégal. kon Guédiawaye mooy Sénégal président de la li nga def fii Sénégal yi moo ko defal dëkk bi dëkk bu dëkk bu ndaw la xëy na ci ay at ndax premier établissement IMEI 1967 la commencé ñenn ñu forcé leen def leen ci ay camion militaire ne leen par force ngeen dëkk ci àll ba parce que biir dëkk bi dañoo bëgg ngeen abale ko ñeneen ñi ñëwal seen bopp ndax amul woon beneen pexe waaye tey jii ku ñu puusul ne demal sax yaa ngi ñëw bëgg yaa ngi ñëw bëgg a dëkk si géejawaay ndax géejawaay nekk na dëkk boo xam ñëpp ko bëgg dëkk loolu su amee monsieur le président de la république c'est parce que yow yaa ko liggéey ñu lay sant di la gërëm loolu nag amuñ ci pay ñun waa géejawaay ñun ñi nga ne ñoo ŋànk mairie yi ñoo man ŋànk politique bi amuñ luñ la ci tontoo lu dul boole suñu doole nekk sa ginnaaw liggéeyal la ndax fi nga jëmale Sénégal ñun xam ne di kookoo bu baax ci loolu dama la bëggoon ñaan dama la bëgg ñaan sa autorisation pour ma woo fii madame le ministre Néné Fatoumata Tall woo fii monsieur le directeur waaye woo fi xarit bi nga xam ne kontaan naa ci juboo ak moom muy Lat woo fi le député Seydina Fall ñu daal ñu def benn photo de famille donc monsieur le président boo ñu ko autorisé ñu def